soxla xolidul faateeti ay borom leer. ne maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom. war na jàmm bu ne ñu gën ko xam ci Serigne Saliou Mbacké mi ngi gane jamono mercredi le 22 septembre ci atum 1915 fële ca Diourbel nekkoon doomu Soxna Faati Jaxate ak Serigne Touba Mbacké bi mu gane jamono Serigne Mamadou Diop Dagana la Serigne Touba yónni ngir mu dem wutali ko aw am na ñu mu ci mel ne Serigne Abdou Khoudous ak Soxna Tahiratu Mbacké ak Serigne Abdou Baaxe Mbacke Serigne Saliou Mbacke Serigne Touba moo ko dalal jàng fële ca Diourbel ginnaaw bi mu daal di koy jox nijaayam Serigne Amsatu Jaxate Serigne Amsatu Jaxate daal di koy jébbal ca daara ja ku ñuy wax Serigne Alsaan Jaxate mu daal di koy jàngal alxuraan ginnaaw bi Serigne Modou Moussa di koy indi tindo ci Serigne Ahmadou Gouyaar ngir mu wéyale fa jàngam ginnaaw bi mu daal di koy jox Serigne Abibou Mbacke Serigne Abibou Mbacke fii si Touba ginnaaw bi mu daal di koy yóbbu Diourbel sëriñ Mahamadu dem bu Jurbel sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Moodu Mustafaa Mbàkke joxoon na ko ndigal ngir mu sañ ci ay dëkk ci atum 1934 mu daal di sañ ci dëkk bu ñuy wax Lumbel Lumbel Sayer mu daal di sañ ci dëkk bu ñuy wax Got sañ ci dëkk bu ñuy wax Njel mu daal di sañ di sañ ci Gelor dëkk bu ñuy wax Njenn ay daara sëriñ Saaliw Mbàkke sañ ci na ay daara fële ca Ngaabo mu daal di sañ ci Njurul Daaru Salaam Njàpp Ndal mu daal di sañ ay daara daara fëri ci njur xelkom mu daal di koy gor sanc fa luy tolloog fukki daara ak juróom ci atum 1990 jàpp 1991 mu daal di sanc quartier bu mag bi ci Touba muy quartier bu ñëpp ràññee atum 1992 mu daal di sanc jannatul maxwa ba ci hôpital bi gën mag ci Touba foofu la mu daal di sanc Touba Njaareem dimanche le 13 mai ci atum 1990 mu daal di toog juróomeelu xalifa fay magam ju baax ja di si Serigne Abdou Khader Mbacke Serigne Saliou Mbacke mu nekkoon koo xam ne ku laabir la woon ku bëri woon yërmande ku toppoon ci ay magam fonk ay rakkam mu daal di dolli quartier yi nga xam ne moo nekkee ci diwaanu tuuba dolli parcelles yi ndax wax na Serigne Saliou Mbacke dolli naa un mille parcelles ci atum 1990 ba 2007 daan taxawu gone yi nekkoon ku bëgg ndaw ñi mu nekkoon koo xam ne ku ndaw ñi ku amoon yërmande ci xale ku amoon yërmande ci ndaw ñi ba tey ji ndaw ñi bëgg lool sëriñ Saliou Mbacke ba amoñu ci sa mu yaatal daayira yi polisu jannatul maxwa moo ko fi indi ci ak xilaafa ba ci daayira bu mag bi di safinatul amaan di saytu war may dëkk bi ci xilaafam lan ko fi indi hôpitalu Matlaboul Fawzayni di hôpital bi gën a mag ci diwaanu Touba ak li ko wër ci xilaafam la fi taxawee ci njiital daayira Matlaboul Fawzayni ak beneen hôpital bu ñu duppee Serigne Mbacke Madina nekkee fële ca jaxal wàllum ndoxit sëriñ Saliou Mbacke def na lu am di Aynu Rahmati ginnaaw bi ñu soppi tur wi tuddee ko maa mu tegoon woon ko yokkub jumaay ci atum 1994 mu daal di koy jox société bi di SDE daayira di saytu mboolem li nekk ci diwaanu jumaay Tuuba ak li ko di daayira Muxaddamatul Xidma moom moo ko fi def ci atum mu daal di yokk jullikaayu jumaay Tuuba mu nekkoon ko ku fonkoon taaliba yi ku bëggoon taaliba yi daan leen xirtal ci ñiy liggéey ak jaamu yàlla mu daa di gorlu xelkom ci atum 1991 ginnaaw bi mu wootee xelkom nag ba taaliba yi dem ba ñëw Serigne Saliou Mbacké daa di leen di sant gërëm leen daa di leen di ñaanal màggalug Tuubaa gi nga xam ne moo ko fi njëkk a fekk ci ak xilaafam mu ngi tombeeg lundi le 10 septembre ci atum 1990 mu daa amaloon ab tukki fële ca Gambie ak Côte d'Ivoire Touba ngir nemmeeku taay atum 2005 commune naturale bu Touba ñëwoon nañ seet si Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou daal di leen di ñaanal ak sant ngir liggéey bu rëy bi ñu amaloon ci biir Touba ka sapeur pompier bi ci Touba ci ak xilaafam la fi ñëw service di seen mu daal di fi bàyyi ñaari hôpital muy Matlaboul Fawzeyni ak hôpitalu Serigne Mbacké Médina ci guddik jeudi le 27 décembre mu daal di wuy ji borom xëy vendredi le 28 Touba Mbàkke daa di koy taxaw jébbal ko boroom wax na ni laata boobu jàngalu woon na alxuraan wàcce lu kaamel sàkk ay sara bi xëyee ci leen yëg ni Sëriñ Saaliw Mbàkke wuy ji na boroom ci yàlla jël na baayu soxna na moo noonu bis boobu di le 28 décembre nekk bis yu tiis ak naqar nekk bis boo xam kenn duutu ko fàtte ci diiwaanu Touba ak li ko ndax borom yërmande ja dem na meelu xalifa Serigne Touba di Serigne Saliou Mbacké wuy ji na borom borom yërmande ja dem na yërëmoon jàmm dem na tey am na ay turandoo ku ci mel ne Serigne Modou Moustapha Mbacké tuddee na ko doom Serigne Fallou Mbacké tuddee na ko doom Serigne Abdou Lahad tuddee na ko doom yàlla yokku ay leeram te taafu ñu ci barke mu nekkoon ku bëgg ndaw ñi yow la xolitul faateeti ay borom leer ne maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom tuubal ma jaam ku ne